man maay docteur Sidi Massar Gueye di médecin chef SAMU municipal de Dakar. docteur depuis demba te ñuy véhiculer ay mbir ci wàllu corona bi ne grave dafa am benn cas euh, xaw ma désinformation la wala xëñ ni ñu ni ko expliquer non la ko gars yi interprété mais est-ce que deug dëgg am cas suspect wala cas bo xamné c'est un cas confirmé. très bien may saisir seen antenne bi ah pour rétablir la vérité des faits et de vous gërëm di leen gërëm bu baax di leen remercier. en réalité fi ñu toll nii dafa am lu ñuy wax cas suspect cas suspect day ñëw ci tous les centres de santé léegi am na ordinogramme boo xamante ni dañ ko mettre en place maintenant su cas suspect boobu ñëwee dañ koy référer selon l'ordinogramme de prise en charge Aujourd'hui, nous sommes dans le district nord. Il y a un médecin-chef de district qui, depuis le début aussi, coordonne les activités. Nous profitons de antenne aussi pour la féliciter, pour l'encourager. Il y a le médecin-chef de région et il y a le ministre de la Santé aussi. Donc aujourd'hui, nous savons pour les cas positifs, c'est le ministre qui communique. Donc il y a eu beaucoup de désinformation. On a vu même aujourd'hui dans un journal de la place des propos qui ont été déformés des photos de la prise au niveau de la structure, c'est des photos d'il y a longtemps, qui ne sont pas des photos récentes. Et vraiment, profitez, profitez de, de, de l'occasion que vous nous offrez pour dire aux médias qu'ils ont un rôle à jouer dans la guerre que nous sommes en train de mener contre l'infection au coronavirus. Aujourd'hui, il est important que les gens sachent que dans la définition des cas, tout patient fébrile, c'est-à-dire qui présente une fièvre, avec notion de voyage de séjour dans une zone d'endémie est considéré comme cas suspect. Moi, docteur Gay, qui suis en train de vous parler, je fais de la fièvre, je Italie, je fais partie des cas suspects. Donc c'est normal aujourd'hui nous identifier ma tel que de bi nous pour les résultats tout le reste après c'est le ministère qui communique. comme ni ma la waa ki ñuy wax comme dafa am cas suspect fii la ñu fekk xam nga ñun tey on a beaucoup de cas tey c'est vrai coronavirus moo xew mais du coronavirus rek y a beaucoup de maladies yoo xamante ne dañ fii ñëw dañ leen di gérer donc ki nga xamante ni dafa correspondre ak li ñuy wax définition des cas donc dafa am conduite à tenir boo xam ne dañ koo teg au niveau du district nord loolu la ñuy tëral. et district aussi dafa allié wu ci li région médicale wax région médicale allié ci li ministre ak cabinetem dogal donc lool rek la amul renen tay ku fi ñew am fièvre nga am notion de voyage dañ lay jappé cas suspect jusqu'à preuve du contraire suñu rôle nak ñun moy ñu daal di informer suñu supérieur hiérarchique ñom ñu jël mesures après nak ñun xamuñ sax résultat yi ku positif ku positif ñun xamuñ.

si yi ñuy jot mën na nekk grippe mën na nekk angine mën na nekk lu nekk mais bu ci am voilà mën na ne lu ne waaw c'est ça ñun suñu épidémiologie ku ko xam Sénégal xam ni tey cas de grippe commune bëri na fi trop sibiru bëri na fi trop c'est vrai nag corona moo xew moo xew mais comme j'ai dit tantôt ci définition des cas en tout cas ci euh, recommandation yi nga xam ne ñun moom la ñuy jox ñun loolu la ñuy wéyee recommandation yi dañu ne ki nga xam dafa am fièvre jóge ci bërëb yi nga xam ni feebar boobu xew dafa am nañ koy tuddee cas suspect. kon yéen famille municipale mën nañ ni vous êtes parce que dañu gis yi ñu ngi ñaxtu ne da dem ci hôpital sax bëgg a def le test mais dañ lay daw euh, am na ku ko signalé ba tey suba ci benn hôpital ba bu motul tur bi est-ce que yéen tey la famille municipale euh, pare ngeen pour ku fi ñëw euh, bëgg a def le test ngeen fi ñu toll nii comme ni ñu koy waxee nit balaa nga koy teste il faut que d'abord ça me présente ay signes et tey ñëpp kenn réeréewul mbir ni test yi tey Institut Pasteur de Dakar moo koy def donc lool leer na ñep yàggul rek gis ngeen gouvernement bi le ministre le président jëlee engagement même dolel bërëb yoy et nous profitons aussi cette occasion bi pour féliciter le ministre de la santé action yi mu tek yëpp ñun ñi nga xamné ñun ñoo nekk au front sentir on sent le soutien de l'État on sentir actuellement le soutien des médias Nous mm-hmm. avons ñu voilà là les médias ont un rôle à jouer mm-hmm. sur la sensibilisation des populations sur les sur les mesures simples d'hygiène à prendre les médias ont un rôle à jouer sur la sensibilité aussi et la gestion de l'information les médias ont un rôle à jouer mm-hmm.

wa di wax ni ka nit ñi nañu jël mesure d'hygiène respecté ko yi nga xamantene un tay directive yi nga xamni ferme de gouvernement bi jël nako nako nit ñi respecté rassemblement yi nañ ko éviter baptême mariage ak yoy yep ci biir képp ko xamantene tay euh du mu turati sa xel dalul voyage nga ñew nga sentir nga ay signe nga jege ci bërëb fajukaay bi parce que lool aussi amna solo mais li gën am solo aussi mooy médias yi jël seen responsabilité aussi def seen liggéey ni mu waree pour ne pas que même koo xamante ne mi ngi ci anam yooyu sax dina ragal sax léegi de woote ne ah man kat fii laa jógee bu ñu gisee information yi ni ñu koy defee di wax que ni daal fi ñu toll nii c'est le ministre de la santé moom moo yor la communication à part le ministre de la santé y a le médecin chef de région qui est là depuis suba ak ngoon elle est avec nous docteur Ndiaye, il y a docteur euh, Dabassi, qui est médecin chef du district Nord, dont nous nous dépendons. Depuis lors, nous sommes tous terrain. Donc, ils sont en train de faire les, suivis, les formations, avec beaucoup, beaucoup d'activités. La population, nous avons dit que nous avons nous nek fi ñu nek et inshallah lepp allons ci war ñun ñing koy merci beaucoup docteur en réalité fi ñu toll ni dafa am lu suspect cas suspect day ci tous les centres de santé légui amna un ordinogramme qui en place maintenant su cas suspect bobu ñëwé dañ koy référer selon l'ordinogramme de prise en charge aujourd'hui nous sommes dans le district nord il y a un médecin chef de district qui depuis le début aussi coordonne les activités profitons de cette antenne aussi pour la féliciter pour l'encourager il y a le médecin chef de région et il y a le ministre de la santé aussi donc aujourd'hui nous xam pour les cas positifs, c'est le ministre qui communique. Donc il y a eu beaucoup de désinformation. On a vu même aujourd'hui dans un journal de la place des propos qui ont été déformés. Des photos de la prise au niveau de la structure, c'est des photos d'il y a longtemps, qui ne sont pas des photos récentes. Et vraiment, profitez, profitez de, de, de l'occasion que vous nous offrez pour dire aux médias qu'ils ont un rôle à jouer dans la guerre que nous sommes en train de mener contre l'infection au coronavirus. Aujourd'hui, il est important que les gens sachent que dans la définition des cas, tout patient fébrile, c'est-à-dire qui présente une fièvre, avec notion de voyage, de séjour dans une zone d'endémie, est considéré comme cas suspect. Moi, docteur Gay, qui suis en train de vous parler, je fais de la fièvre, je suis je fais partie des cas suspects. Mm. Donc c'est normal aujourd'hui nous identifier, moi, tel que bi nim ko waxee ñu prélèvement yobbu ko fiñ ko wara sayto pour saytu les résultats li ci dess nak ñun loore lañ ci am tout le reste après c'est le ministère qui communique comme ni ma la waa ki ñi wax comme dafa am cas suspect fi lañu fekk xam nga ñun tay on a beaucoup de cas tay c'est vrai coronavirus mo xew mais du coronavirus rek y' a beaucoup de maladies yo xamantene dañ fi ñew dañ leen di gérer donc qui nga important, c'est de correspondre à la définition des cas donc dafa am conduite à tenir dañ au niveau du district nord lors la terrain. Et et district nord aussi est allié wu ci li région médicale wax région médicale allié wu ci li ministre ak dogal donc lors rek la amul renen. tey ku fi am fièvre nga am notion de voyage dañ lay des cas suspects jusqu'à preuve du contraire suñu rôle nag ñun rôle, ñu daal di informer suñu supérieur hiérarchique ñom ñu jël mesure yi après nak ñun xamuñ sax résultat yi ku positif ku positif ñun xamuñ li ma ci mën wax mooy loolu yëpp amul waaw loolu yëpp amul parce que tey man maay médecin chef saint municipal lu ci am lu bëri tey je suis bien placé pour dire tey même ñi demul fan xam nañ ni fan fees na donc il faut que nit ñi média yi ñuy def ni yéen di ñëw à la source di laaj nit ñi les principaux responsables je pense que l'homme est qui responsable non non comme je l'ai expliqué, fi cas suspect mooy ku am fièvre am signe, voyage Signe yi jot grippe angine mais voilà mën na lu c'est ça Nous, sommes épidémiologiques, nous Sénégal cas de grippe commune bari na fi trop sibiru c'est vrai na corona xew mais comme j'ai di tantôt ci définition des cas en tout cas ci euh, recommandation yi nga xam ne ñun moom la ñuy jox ñun loolu lañuy ñuy recommandation yi dañu ne ki nga xam dafa am fièvre jugee ci bërëb yi nga xam ni feebar boobu xew dafa am nañ koy tuddee cas suspect amuñu benn cas toll ni may wax ak yow ñun comme je vous ai dit ñun xamuñu lu positif ak lu négatif ñun dañuy def li ñu sant ñu yebal léegi nag lu positif lu négatif ministre ak ay service am ñoo ko xam